ñu violence bi gannaaw suba ñu dem ci urne yi voter na rafet. inshallah té voter gi sax mo ñuy déterminer ah mooy déterminer kenn ku ci nekk yaakaar ni politique la ce n'est pas de l'animosité nous ne sommes pas dans la jungle et nous ne sommes pas des animaux donc gis nga moment ali euh, comment dirais-je au contraire de ce qui se passe ici diaspora mi ngi battre campagne. Mhm. xam nga nan la défé campagne yaay dañuy dem ci ville yi wax ak nit ñi bu fa ñaari kii hmm. dajee hmm. ñu ñu joxante rendez-vous ils se jettent même pas de pique ils se font même pas d'accolade dañuy hmm. joxante rendez-vous pour def face à face ku nekk présenter sa programme euh, euh, am na jeune boo xamante ni moom mooy tête de liste ki nga xamante ni moom moo di gox yu bees foofu ca diaspora ci zone Enoch moom dafay jongante ak euh, ku ñuy woowee Sonko le santa hein, ki nga xamante ni moom moo di tête de liste Pastef alors Mingi euh, je vais vous le dire tout de suite, hein. il a interpellé, il lui a demandé en face-à-face parce que PASTEF 2022 il est député donc il député de la diaspora Mingitudou Dou Abdou Sonko voilà je voulais vraiment juste être sûr du nom Mingitoudou Abdou Sonko Taï, 19h30 ci Toubabi. tubaab bi mhm, mhm, mhm. chaîne tubaab bi couvrir on on pas envie de voir ce, genre de politique-là. On n'a pas envie de voir nos enfants euh, vraiment s'exciter à, s'entretuer comme ça. Le Sénégal mérite mieux que ça, je pense, maman. garde corps yi xeex bi tànk bawuñ ko ñu toog ci télévision yi wax ak nit ñi. 21 jours yi ñuy tase di xeex di yàq essence di jëli garde corps mënuñ kaa toog ci seen yi ku ne wax sa programme. jënd temps d'antenne bu bés ba jotee waaw mais mais RTS kay dañ fay am temps d'antenne. waaw yokk privé yi ci privé yi. dem ci privé yi tamit ku ne wax li nga bëgg. Mm-hmm. mais essence bi ñu yàq xeex bi ñuy def te wax dëgg yàlla xeex bi jaru ko xaañante bi. gorante bi jaas yëpp mën naa ñàkk te silmaxa bu duggee cinéma et bëtam taxul dama bëgg a jël réew mi wala dama bëgg a def nang wala dama bëgg am assemblée majorité ba ci xeex di ci jamante kon kooku mbaa des na la wóolu ah, na la wóolu c'est la grande question et puis et puis est-ce que on n'a pas encore compris euh, monsieur Val euh, vous êtes dedans hein? parce que ci askan bi nga bokk donc bu fekkee ni am nga sa opinion tamit mën nga ko bokk ak ñun dama gis ne euh, kii di présent Ousmane Sonko di njiitalu euh, passef. Mon mi ngi ci bir nguur go la chaise sur laquelle il est assis est-ce que il n'est pas lui-même victime de l'oppression dont il a été victime dans le passé hmm. ni Macky Sall ak kodef. ko def est-ce que du l'eau la foog ni ni la rek la wara doxale limu don xex doon dañu gis ni loolu lay lay est-ce que kon l'eau la tubab di laaj ndax il n'est pas victime de son <laughs> de son oppresseur. Euh, d'accord bon mën naa ne comme ni nga ko waxee rek ñun ci askan wi lañ bokk donte man li li waral sama teewaay tey du woon waxi politique. dinañ ci wax ci tàllam mais li ci actualité la nekk te actualité bi yaa ngi koy dund maa ngi koy dund keneen koy dund boo ko waxtaaneewul fi waxtaanee ko ci mbedd meeg sa xarit donc dañuy soxla xam askanu Sénégal lan la ñuy xalaat ci lii liñ ciy xalaat mën naa ne suñu yaay ji toog wax na ko léegi. Mhm. Eh, ndax ñun ñëpp ci bokk ak foo mën di féete it eh, Sénégal jàmm lañ bëgg. Mhm. ci jàmm la ñuy mën a la ñuy mën a ànd ci la ñuy mën a defar ci la ñuy mën a tabax. Mhm. kon ak wax ji fu mu mën di jibee lu ko mën di indi it lii ëpp solo moo ñu fexe daje. ndax lu ci mën di am tamit ni mu ko waxee Abdoulaye Wade ak Macky Sall eh, juwaluñu woon 2012 mais ñi fi nekk it juwaloo wuñu mën nañoo daje mën nañoo waxtaan. Mhm. xool lu ñu lu ñu loo xamante ne nii ay ay ay ay dissension la am seen biir suñu waxtaanee kon ndax réew ñun ñëpp ñoo ko bokk buñ koy defaree dañ koy defar ensemble bu yàqu it ñëpp la yàqul du yàqul ñi bàyyiñ ca des. Euh, léegi nag li fi jot a xewit am na loo xamante ne nii daf daf ko jiitu euh, ndax du guléet ñu ne mhm. ay violence am na ci am na ci campagne électorale violence Sénégal yaakaar naa ne deux ans yi passé fi mu ci yegg yeggu ko woon ci ci ci année yi ko jiitu Euh, kon nag du du du jékki-jékki rek jeex loolu moom gaa mën nañ ko mën nañ ko nangu waaye nag am nañ yaakaar ne nguur gu bees gi ñu fi teg nit ñi yaakaar gu gu rëy ci ñoom dinañu liggéey justement jëmale ci apaisement bi bi bi bi ñëpp soxla bien en tout cas euh, am cadre euh, yo xamanteni euh, présence présence je pense que Sénégal yépp ko ñawlu ko il y a des discours yo ça peut ressembler à de la violence parce qu'on est dans une situation d'oppression et que c'est son instinct de survie qui parle bob mën accepter nga tenir de discours yi may ma force dimbali len ma bu len nangu ñu taxa mi d'accord loolu ça peut pousser les jeunes à sortir à à défendre la démocratie etc. mais quand on est au pouvoir et qu'on tient le même discours on devient l'oppresseur ouais si on veut hein moi je comprends parfaitement mais toujours est-il que Asma. Hmm. Euh, ñoom nañu ne ils sont plus dans l'opposition oui ils sont dans le pouvoir donc war a faire un recul pour mieux sauter parce que tamit pour euh, yëpp wax nañu wax dëgg yàlla kilifa qu'il wax nañu li ñu mën def nañ ko. donc dafa laaj nit ki boo demee ba xamatoo fa jëm nga delluwaat fa nga jóge woon parce que tamit rien sedd sert de courir il faut partir à point dafa am yoo xamante ni ci réew mi tey jii ñun du sunu mbaax du sunu mbaax nañ ci góorgóorlu parce que bu ñu xoolee les les les droits de l'hommiste yi kilifa yi réew mi ñëpp wax nañu nañ leen mhm. bàyyi xel

te xam ngeen ni duñ ko nangu ma nga ci tànku ak ni muy instrumentaliser toujours la justice bëgg nangu mandat Barthélémy Diaz en tant que maire de Dakar et en tant que député à l'Assemblée nationale xam nga askan wi moo xool ba ne Barthélémy doy na ma ñu ne ko kii assassin la mu ne la bëgg naa kii lii la kii la la mu ne la bëgg naa moom moo ma doy pour ma jox ko Dakar ñu dellu si mbër mbër mbër doy na moom moo ñu doy pour ñu mu ñu jox ko député Ndakaaru mu demal ñu assemblée nationale kooku kenn warul am sañ-sañu ñëw tey ne da koy nangu loolu ci violence yi nga xam ne Macky Sall mi ngi koy exercer mi ngi koy waajal nag ñu teel a araftu réew mi dafa changé man maay premier ministre du Sénégal man am naa sañ-sañu en tant que premier ministre ma suis ay ministre de l'intérieur jox ko ministre de la justice parce que ministre de la justice c'est une autorité politique c'est pas une autorité judiciaire vous kenn comme nit ñi monsieur le ministre de la justice de femme indépendance mënuñu suis def ministre de la justice pour suivre le déchet. Amoul sañ-sañ bañ wo procureur général kooku wo procureur pour nous poursuivre Déthié lolu moy deug bi. néna ko depuis 15 ans dans ce pays ben waye fi nek ñu tuddé ko Barthélemy Diaz mu xamadee xamadi ba fu xamadi yem yaruñu ko waye bayam budé bayam mo xamadi moom mënul bañ a xamadi. waye depuis 15 ans. toutes les sources de violence benn waaye fi nekk di jaay ni moom EB booy Dakar la di recruter ay nervi foog ni loolu mën na wéy. wax ji daa rëy ba vidéo bi mayuma ko mu yegg foog naa ni yaay politique euh, warut a tax ñu yegg ci suñu waajur yi. gisaguma fi kenn koo xamante ni. dafa wax.

Oui, ministre de l'Intérieur, oui ministre de la justice. c'est lourd quand même. kaddu na rafet kaddu dañ koy wodd. parce que ay xale sax dañ lay seetaan xale boobu noonu. après demain bu mm. xëy xuloo wala xeex ak euh, moromam. wax ko dara ci waajuram. Uh-huh. mais il ko a un leader. de parti politique est tout d'abord un leader d'un groupe de personnes. Et quand on est leader d'un groupe de personnes, on a le devoir d'éduquer ces gens. en premier balaa ngay jëriñoo nit yooyu da leen war a yar kàddu yi ñagas na trop yaay. asma dafa am ci réew yoo xamante ne réew yu développé dëgg. dafa am ñu yor kàddu war a wax dafa am ñu war a wax ak ñu wërta wax. Mm-hmm. te wax itam dañ koy jàng. boo demee ba nekk kilifa. jàngaatal naka la ñuy waxee naka ngay waxee ak askan wi. Mhm. waaye bul ne man fa ma nekkoon moo tax man la nit fa mu nekkoon ba tey jii nga yor réew mi yàlla def loxo réew mi nekk ci say manaam réew mi nekk ci say loxo danga nga war a soppi doxalin. parce que tamit référence nga nit ñi dañ lay déglu yow yaa war a xool yan baat nga war a génne te balaa nga koy génne baat ba fa mu nekk sori na de gémmiñ il faut tourner langue sept fois avant de parler mais lola neex nga wax ba wax ba ba jëllu wax ja wax ca nga nga ta waxal loolu wax deug yalla erreur la. loolu de tognor bi la bu la tognor yaa ngi toññor bi du loolu la. wa euh, le premier ministre dans son rôle assure l'exécution des lois et exerce le pouvoir réglementaire sous réserve de la signature des ordonnances et décrets délibérés en conseil des ministres par le chef de l'État. Je vous rappelle juste un peu le rôle du Premier ministre. Hein. Assure aussi la coordination de l'action gouvernementale en arbitrant les politiques décidées dans les différents ministères. Madame. <laughs> yo, vision président.